nombre bi moom su fekkee dañu ko def global quatre-vingt mille et mille personnes yu topp mënu ñu la wax lépp lépp lépp nag waaye quatre-vingt yi moom mat na biir na ma ni quatre-vingt mille yi mat na ndax euh, at mu ne dañuy liggéey janvier ba décembre pour at bi matee tey ñu global lépp c'est calculer ko xool nombre li fi dugg euh, ak cas yi accident ak yeneen yi ci des ak xale yi indaale bakkan ak ak lépp daal dañ koy xam waaye ki tënk daal quatre-vingt mille moom topp na moom. maanaam dëgg la bu fekkee xool nañ ko Thiès ak région moom jàpp naa ni bari na ci lool lool région Thiès Kaolack kasaalika na ko noonu waaye daal ñoo ñaar yooyu moom ñoo fi gën a ëpp luñ fi ndax Thiès ak bi moom. man naa la boo ñëw di ko xayma da da dana dana jéggi daye lool lool lool ba yegg waaw. xam nga la woon te penc mais daa dëkkul fii fii moom ku fi dikk ak koo mën di doon ak foo mën di bàyyi ko danan la laaj lan nga na foo nan ko nan la tukki faatu nan la tudd fan la dëkk ñaata lan lan la doon liggéey ana lan moo ko dal laaj ko ñaari waajuram bu door a jublu ci ay mbiram waaw. maanaam daal bu bu fondé ngeen di def ci moom ngir man a ba laata ngeen koy tijjil bunt yi. waaw enquête bu wér te wóor enquête bu wér bi dinañ ko def moom ndax euh, buñ ko enquêtul fii ñu ne ci àdduna dinañ ko enquête boo liggéey enquête bu asaayir bi moom ñun ñoo ko yor waaye baatin bi eh, sunu borom moo ko yoral boppam. waaw moom doon lay def enquete ko ba noppi su fekkee ku ku amee lu mën di amee rek di ci kayit la sukkandiku laaj ko jël kayit yu xool noonu lay demee waaw. ne denc bi biti réew yi lu fay jógee ni ñuy saytoo fii lan koy saytoo biti réew lu fay jógee lu leer nañ lay doon danañ coordonné ñooy yor ne rob ba indi ko ñu xam li mu doon ku doone li mu doon coono doon koo xayti ni ku war a dugg fii la. ala kuliyaan yi dina yegsi bu bu nekkee ku fi wërtu dugg moom sëriñ bee koy dëppal boppam du ñun. loolu ñuy wax borom ñaari ñëw nañ fi ba tàyyi ñenn ñi ñëw nan ak si wuñu ñenn ñi bu ñu see tamit am nañ ci résultat boo xam ne dem nañ ba gungewaat leen ban wéññeekuwaat ñu delluwaat ñoo xam fu ñu ko yóbbu waaye waaye du doon armée yi. Mhm. ñaari tur yi ndax fii moom li wax rek euh, sëriñ bi moom mooy mooy seggal boppam. may mooy seggal boppam ñun saay si rek lañ yor waaye ku fi war ñëw ku ne di ñëw waaye borom ñaari tur yi moom saa su ne ala kulli yi nan bàyyi xel ne am nan mhm. ay ay ay ay représentants yoo xam moom. Euh, jànkonte nag ñoom kun gis naka su noonu dinañ woote dinañ ko bàyyi xel bu dikkee moom ñi fiy liggéey dinañ ko saytu bu wér péng péng péng ba bu ye loo tey yegg si moom fii du fi yegg si. E, ci kilifa yi miir bii ci miir bi miir bu weex bi ngay seet nii boo xoolee mooy waa kër Cheikh Modou Lamine Baara sëñ Bassirou sëñ Serigne Bassirou Baara mi ñu denc fi ak yeneen i kilifa ba ci doomi Cheikh Sidi Mokhtar Cheikh Baara ñoo ñooñu kilifa yi tedd lan woon ñu ngi fii am na yeneen yu fi tëdd ndax sëñ Abdou Samatum Serigne Fallilou mi Euh, sëriñ Afim sëriñ Fallilou mi ngi fi euh, sëriñ Abdourahmane Fall Tilala la ni si daaw mi ngi fi woon te mi ngi fi Cheikh Béthio Thioune mi ngi fi ak ñeneen i ñeneen i kilifa am na fi jàmbaar joo xayti ni war feek doomu aadama ngi dox ci kaw su war nañ koo ñaanal jumaa ji mi ngi nii ci biti muy Alaaji Mandiaye Diong mi ngi fi te nekk ni si daaw mi ngi